dikkaat nañ leen ak euh, tafsirul quran bi ñu doon def bés bu nekk incha allah ñu ngi woon ci suuratul baqara ba léegi ñu ngi ne woon wa man tatawwa fa inna allaha shaakirun alim wa nazala aaya bi ñëw wàcce na fi yahudi ci yahud fil yahudi ci yahud yàlla ne inna lazina gaa yi nga xam ne yaktumuuna naasa ñu ngi nëbb nit ñi maa ci li nga xam ne anzal naa wàccee naa ko minal bayinaati ci ay lay yu bir walhuda ak njub mooy ñu ngi nëbb nit ñi ar rojmu wala ar rajmu wa naatu muhammadin sal allahu alayhi wa sallam attee bi nekk ci tawrit mooy ki njaaloo testangé wu dañ la dañ ko war a jàmm ba mu dee ñu ngi ko bind ci tawréet te ñu ngi koy nëbb ak melokaan yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla indi na ko ci tawréet mu ngi ci tawréet ne fàng ñoom di itam dañ koy nëbb moo tax yàlla ne inna allazina yaktumuuna ma anzalna min albayinati walhuda min baadi ginnaaw ma bayyannaahu biral naa ko linnaasi ñeel nit ñi fil kitaabi ci tawreet loolu bind naa ko ci tawreet mu bir ñi jàng tawreet yépp xam nañ ko ulaayka ñooñu yàlla anuhumullahu yàlla dana leen soreel yërmande wa yàlla anuhum dina leen rëbb allaa'inuuna rëbbkat yi mooy almalaayikat dinañ leen rëbb jullit yi dinañ leen rëbb illa lazina ndare gaa yi nga xam ne taabu tuub nañu dellu wa wa aslahu ñu yëwal na amalahum seen jëf wa bayyanu ñu daldi biral lépp loo xam ne nëbboon nañ ko ñu jël décision léegi biral ko ba ñëpp yëg ko fa ulaayka ñooñu de atuubu dinaa nangu tuub alayhim ci ñoom wa ana man attawaabu mooy nanguwaal koon tuub arrahim mooy yërëm bil muminina ci jullit yi yàlla ne inna alladina gaa yi nga xam ne kafaru yéeféeru nañu wa maatu ñu dee وهم نيوم كفار واي ودي لا نيو اولاك نيوني عليهم نكنا تي نيوم لعنه الله ربك يالا والملائكه اك ملائكه ربك ملائكه والناس اك ربك نيت ني اجمعين مبولي سين خالدين واي سخ لا نيو فيها تي ربك لا يخفف ديفول ويفال عنهم تي نيوم العذاب مبغل ولا هم ديت نيوم ينذرون ñu ngi leen ñu leen di muñal wa ilaahukum seeni borom almustahaqu almustahiqu lil ibaadati minkum yàlla ji nga xam ne seen boroom mi nga xam ne moo yeeyoo jaamu minkum ci yéen ilaahun buur la ilaahun boroom la waaxidun bu di benn du ñaar du ñett laa ilaaha amul benn buur bu ñu jaamu illaa huwa ndare yàlla laa ilaha amul benn buur bi ñuy jaamu ci jaamu ga am njariñ ñàkk jaamu ga di jur lor illaa huwa ndare yàlla arrahmaanu mooy yërëm jaam yi ci àddina arrahim mooy yërëm jaam yi ci àllaaxira inna fi xalqi samawaati wal ard nekk na ci bindug bi bi yàlla bind asamawaati asmaan yi juróom-ñaar wal ard ak suuf yi juróom-ñaar wa ma baynahuma wa ma fihima ak li ci nekk min al ajaa'ibi ci ay kéemtaan waxtilaafi leyli ak wuute gi mu wuute al guddi wan nahaar wuutale guddi ak wan ak bëccëg dégg nga fulki ak bato ak gaal allati yi nga xam ne tajiri dinañu daw fil bahri ci géej bi maa ci la nga xam ne yan fa un loo xam ne dina jëriñ nit ñi at tijaaraati wal wal xemli gaal yi bateau yi dañu jëriñ nit ñi ci seen commerce ak yenu gi ñuy yenu su fekkee ne marchandise ak conteneur yi jóge Europe di ñëw fi di indi marchandise bu ne su fekkee ne nit moo koy doon déplacé du bateau kon coono dina ñëw loolu yëpp dafa bokk ci xéewal borom bi subhaanahu wa taala nee na wal fulk ak gaal allati yoo xam ne tajiri dina daw fil ci géej nga chargé ay conteneur dangay nga géej géej goo xam ne dafay mel ni île mu chargé ay conteneur jó jóge jële ko Amérique wala jóge ko euh, France wala feneen ñus yëpp ko ba mu fees del mu indi fi su bato bi téeree dina am ay fan nit ñi di di yëbbi te du jeex fa ay euh, wa ma anzal na ak lépp loo xam ne wa ma la lépp loo xam ne yàlla wàcce na ko mina sama cukkee ci asmaan min maa in ci taw min maa in ci ndox wa maa ak lépp loo xam ne anzalallahu yàlla wàcce na ko mina sama i ci kawe mina sama i ci kawe min maa in ci ndox est-ce que asmaan mooy taw ah déedéet niir yi ñooy taw te niir yi agguñ ci asmaan waaye nag assamaa mooy ci arab mooy lu kawe kon ñu tudd asma niir taw bi asama kawe ci kaw kaw kay mina sama ci kaw ngay wax wala mina sama ci niir yi min maa in ci ndox <laughs> fa ahyaa mu daal dundal bihi ci ndox mi al arda suuf si mu dëkkil suuf si baada mawtiha ginnaaw suuf si bi mu woowee bu mu dee ba wow wa bas mu daldi tasaare fiiha ci suuf si min kulli daabatin bépp daaba daaba nag soo ko déggee lépp luy dukkat ci kaw suuf mooy daaba wa tasrix ria ak wëlbatiku ak ria kene euh, euh, maa ngi wax pulaar wa tasri riyaa ak euh, wëlbatikoo ak ak ngelaw yi januban junuban wa shima januban wa shimalan xaaratan wa ngelaw yo nga xam ne dañu jógee penku jëm soow jóge ndeyjoor jëm càmmoñ yoo xam ne dañu tàng ak yoo xam ne dañu sedd wa sahaabi ak ay niir almusaxar yoo xam ne dañu leen tàggat yàlla moo leen tàggat na sama diggante asmaan wal ard ak suuf bilaa alaaqatin te fenn loolu de dala dala euh, daalaatun lu tegtale ala waxdaaniyatihi ci kennuk yàlla li qawmin ñeel ñi nga xam ne yaaqiluuna danañu xelu wa min annaasi bokk na ci nit nit ñi am na ci nit ñi man ki nga xam ne yattaxisu dina jàpp min duunillaahi bàyyi fi yàlla àndaadan ay xërëm di ko jaamu bàyyi fi yàlla yuhibbunahum dina ñi sopp xërëm yi ka xubbillaahi ni ñu waroon sappee yàlla wala zina yi nga xam ne nag amunu gëm nañu ashaddu xubban ñoo gën a tar mbugal euh, mbuggeel di tar mbëggeel lillaahi ñeel yàlla ñoom ñoo gën a taruk mbëggeel lillaahi ñeel yàlla ولو ترى سو جسون محمد صلى الله عليه وسلم سو جسون يوم محمد صلى الله عليه وسلم الذين غاي nga xamne ظلموا توغنيو اذ يرون العذاب بني غيس مبوغل ها لا رايت امرا عظيما لامبي موي جواب لو كون لا رايت لا رايت امرا عظيما جواب لو محفوظ محذوف محذوف kon di nga xam ne ànnal quwata kattan wal xalabata ak noteel lillahi ñeel na yàlla jami an boole seen kan tan ak noteel lillahi ñeel na yàlla wa anna allaha yàlla shadiidu aji tar la al azaabi ni muy mbugale yàlla ne istabarra allazina tubiu min allazina tabau bi nag xuloo la xuloo mooy ñi nga xam ne dañ doon toppee ak ñi ñu doon topp waaw mooy xërëm ak ki koy jaamu sëriñ ak taalibe ak koo koo doon jaamu rek waa koo doon topp rek te toppoo yàlla nga topp topp ko ngir moom su ëllëgee su ëllëgee di ngeen ko xuloo ci kanamu yàlla yàlla wax na ko de te li mu wax dana am te ci ci la ñu jëm yàlla is istabarra allazina tubiu min allazina tabaw keroog bi nga xamee ne dena dana deñtanlu dafa deñ dañ na deñ allazina gaa yi nga xam ne tubi u toppoo topp toppoon nañu leen ak gaa yi nga xam ne tabaw ñoom ñoo doon topp toppaate xam nga lu ko wara dañ leen topp ba yawmal qiyaama ñu xam ne mënaluñ leen foofu dara ñoom lañ doon jaamu wala nañ leen ñoom lañ leen topp xam nga su ñu waxee ñuy topp xërëm ñooñ ñi doon topp xërëm yi la ñuy wax walla ñu topp seetaan moom la ñuy wax su ëllëgee xula bi dana tar ñun nag soo fa jëlee da nga koy indi fii ci ñun nag exemple képp koo xam ne danga koy topp te wonuloo yàlla wonuloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam wonuloo jaamu yàlla nga topp ko di ko liggéeyal di ko xëyal di ko gontool lépp lu mu def nga ne ko sàññ ko am na ci ndigal moom borom lii borom lii ak borom laa borom nga topp ko ba ëllëg wallahi di nga rëccu xuloo rek ngeen di mujje xuloo rek ngeen di mujje istabar lezi istabarra allazina tubiu min allazina tabaw kenn ku nekk dina xuloog sa moroom mu ne ko man xam lu waral xuloo bi xam lu waral xuloo bi wara abul azab léegi gis nañu mbugal sës nañ ci mbugal bi lii rek moo des pexe amul pexe amul wataqataat léegi dog na bihim ci ñoom al asbaabu sabab yi sabab yi leen lënkale woon yépp sama sëriñ la moo mooy sëriñ sama sama sëriñ sama sëriñ moo lii ak lii ak lii loolu yépp dog na yàlla ne fa isa nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma isin wala yatasaaluun su ñu demee ba wol bufta ba fala ansaaba du askan baynahum seen diggante wala yatasaaluun kenn du ko laajati sax diwa juróon diw ak diw déedéet loolu kenn du ko laajati kon su ko defee diggante yi dagg na li taxoon ñuy toppante loolu yépp dagg nañ ko dog nañ ko dara amatu te ñu ngi nii seen mbugal waqaala daldi di wax allazina gaa yi nga xam ne ittaba'u ñoom ñoo doon toppaate hmm? ñoo doon topp ñu ne law an na lanaa karratan tey de suñu amoon yàlla may ñu benn bés delloo ñu ci àddina delloo ñu ci àddina hmm? fa natabarra dencalu dañtalu minhum ci gaa yi ñu doon toppoo te tey ñu ñëw ba fii ñu génn ci ñun dafa mel ne ñoon ñun musuñu leen topp nit ñi bàyyee tey su boobaa suñ delluwaatoon ci àddina doonte benn bés kon ñun ñi dañ nañ leen bàyyi ba mel ne musuñu leen xam kama ba na tabarra'u minna ñu ñu bàyyi ñu ñu dencalu ci ñun tey kazalika xamul naka noonu yurihim la leen wone allahu yàlla amalahum seen jëf xasaraatin ci perte yàlla woon na leen li ngeen doon jëf yépp perte na loolu amatul te du ngeen delluwaat c'est du ngeen delluwaat te jëf ngeen li ngeen di jëf ba pare léegi atte rek innaha kalimatun wala kalimatan huwa qailuha wa min waraihim barzaqun ila yawmi loolu loolu wax la rek yéen a ko wax waaye delloo moom amul kon nit soo koy soo koy topp na fekk mu topp yàlla balaa ngay wut sëriñ wuutal koo xam ne jaamukat yàlla la ku ragal yàlla la ragal yàlla sax yàlla waaye koo xam ne ku jub ku tegu ci diini lislaam ku tegu ci siraatal mustaqim lépp lu mu lu mu def dafa dëppoo alquran dëppoo ci sunna nga topp su la indee leneen loo xam ne du loolu nga teggi sa tànk nga teggi sa tànk sinon da lay amul kenn koo xam ne dafa sañ dafa sañ di daganal lu araam walla di araamal lu dagan te yàlla bi mu yónnee yónnit bi alayhi salaatu xamal na ko lu mu sañ ak lu mu sañul yónnent yépp xamal nañ leen lu ñu sañ ak lu ñu sañul boroom xam-xam yépp xamal nañ leen lu ñu sañ ak lu ñu sañul lu daggan ak lu araam alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahuma umuurun mustabihaat lu araam leer na ni leer na ni ni ni ni midi xam nga ne lii lu araam la lu dagan xam nga ko diggante bi am na ci ay mbir yoo xam ne yu lënt waaw yu lënt yi nag ci la gaa yi profité nag ku bëgg njubadi nga profité ci kon yàlla nañu yàlla defal njub yàlla nañu yàlla defal njub waaye ala kulli xaal sooy topp daal toppal ku topp yàlla su demee teggee tànkam ci topp yàlla yow na nga teg sa tànk ci sunna alquran ak sunna waaye li mu def nga ne sañ na ko boroom lii la borom may la borom kasu la borom mooy jam boroom jamono ah? moom moom jamono moom mooy ana ana ana ñu moomoon jamono nag ana ñu ah? ñu moomoon sax Sénégal ana mu tey ana mu tey nañu wax ci corona bi ñu dindi ko ñu ngi bëgg a dee. suñ ci mënee dara nañ ko dindi suñu mënee ci corona bi nañ ko dindi tëj nañ jumaa yi tëj nañ jàkk yi tëj nañu église yi tëj nañu marché yi tëj nañu liggéeykaay yi couvre-feu lañu ne ana ana ana ana ñi moom senegal ana ñu am sañ-sañ ana am ñu wilaay ana borom jamono yi gis nga nit ñi nañ jaamu yàlla bàyyi caaxaan nañu jaamu yàlla bàyyi caaxaan boroom jamono kenn la mooy yàlla sooy jaamu jaamul yàlla sooy ragal nangay ragal yàlla di ci de ay caaxaan la ay caaxaan la ay caaxaan la ay fu mu nekk nii dafa mel ne yàlla dafay wone boppam ñi doon fëgg dënn wu di wone ne xam nañu xayb lu fàddu ah? xam nañu ay secret xam na am nañu wilaaya am na kii anamu ñoom sax dañ leen di tooñ sax di leen ko waxal ñoom sax duñ ko wax man dama yaakaar ne ki am wilaaya yàlla du la dee mukk nga ñëw di dévaler secret yàlla rus nañ ko ñoom ñemewuñ ko sax waaye képp koo xam ne dañ la wali yu nga walla borom sancan walla cër nga ak ngay ngay ngay tëggu di kii doo moom doo moom ñi ko doon ñemewuñu ko ñi ko doon ñemewuñu ko ñi ko doon ñemewuñu ko kon nañ jaamu yàlla nañ jaamu yàlla sëriñ daal dalay diggal lu baax di la tere lu bon ngay te mu la ci jiitu li mu lay diggal def ciy jiitu li mu lay tere def ciy jiitu kazalika naka noonu yu yurihimullahu na leen yàlla wone asayaati seen jëf ji bon xasaraatin te mu nekk perte tey ñu nekk nag ñu rëccu xasaraatin aleyhim perte la ci ñoom wa maa hum ñoom bi xaarijiina ñu génn mina naar ci safar yàlla ne yaa ayuha allazina amanu ee yéen ñi gëm yàlla kulu lekk leen mimma fi l ardi xalaalan tayiban mimma min bi minam tabaid la du lépp loo xam ne li génn ci suuf ah la ñuy lekk du noonu hmm? kon leen nag leen nag li génn ci suuf <laughs> sàngara génnul ci suuf ah raisin yi ñuy euh, di nal di ko def sàngara sàngar si si suuf la génn yàmbaa nax yàmba si suuf la génn waaye tere nañ ko kullu muskirin haram lépp loo xam ne dafay mandil tax nit dafa haram hmm? kon len li nga xam ne lu dagante sell ngeen lekk ko wala tattabiu bu leen topp xutuwaati seytaani ñalli seetaan ñalli seetaan mooy yoon yu ndaw yi innahu moom seytaan aduwun mubiinun noon lu bir la noon lu garaaw la lakum ñeel leen innama yaamurukum xam nga li mu leen di digal bi suu'i ci bàkkaar wal fahshaay ak wax ju bon wala jëf ju bon lu dëppoowul ak shari wa an taqulu ngeen di wax alallahi ci yàlla maa la taalamuuna lu ngeen xamul wa iza qiila su waxeef lahum ñeel leen ittabiu topp leen maa ci li nga xam ne anzalallahu yàlla wàcce na ko min a tawxiidi ci wéetal yàlla wa taxliili tayibaati ak daganal lu yàlla daganal qaalu ñu daal di wax ne laa duñ ko def bal li fi ne bal li fi ne nattabiu dinañ topp maa alfay lépp loo xam ne fekk nañu alayhi ci loolu aaba suñu bàyyi di ko jëf loolu la ñuy topp lépp loo xam ne fekk naa samay baay yi di ko def suñuy maam yi di ko def loolu la ñuy def léegi-léegi nga fekk dara loo xam ne baaxul daganul hmm? léegi-léegi nga fekk nga juddu ci famille sax ah nga gis ñu xam ne loo xam ne doo xam lu mu lu mu doon ci charia day mel ni bokkaale aloolu ah, loolu soo xamee ne baaxul ci charia daganul ci shari bul eh, bul bu bu mu tax nga nga nga topp leen ci loolu ah samp kuur ak gën di ci sotti ndox di sotti soow <laughs> eh, séeréer yi waay waay sama gaa yi loolu kay fekk nañu seen baay yi di ko def seen maam yi di ko def waaye taxul mu baax hmm? yàlla ne walaw kaan doonte nekk na sax aba u seen baay yi laa yaqiluuna amuñ xel sey an ci dara da leen di topp rek ah. te walaa yaxtaduun jubuñu amuñ njubug téere wa masalu lazina kafaru misalum gaay nga xamne dañu weddi ka masalil lazina mu ngi melni waaji nga xamne yan iqu de fay wax bima la yasma'u lo xamne du ko deg illa du'an ndare wote wonida an ak kaddu gu jog moy wote rek ñooñ sumuñ way tex lañu bukmun way luu lañu umyun way silmaxa lañu fahum ñoom laa yaqiluuna du ñu xelu du ñu am xel almawaïs ci ay waare yaa ayuha alladina aamanu yee yéen ñi gëm yàlla kulu lekk leen min tayibaati ci yu dagan maa fee nga xam ne razaqnaakum wërsëgal naa leen ko washkuru na ngeen sant lillaahi yàlla ala ma axalla lakum ci lu mu leen daganal in kuntum dem nekk ngeen taabuduuna di jaamu iyaahu ci yàlla innama xamal arama araam araamal na ci yéen yàlla araamal na ci yéen almaytata médd dégg médd araam na wa dama ak deret joo xam ne dafay tis deret day juy tis damun fuux loolu daganul ah muy tis ngay ren di xar walla béy wàllu mu ne deret jooji di tis di génn boobu daganul sobe la su da dalee ci sa yére danga koy raxas soog a julli kenn waru ko denc am na ñoo xam ne sax su ñuy ren di tabaski deret jooju tis tis tis dañ koy jël di ko di ko xaw ma lu ñu ko def di ko fajoo xaw ma di ko def ci seen nopp yi xaw ma ak ak yooyu daganul sobe la medd moom medd moom euh, daganul medd daganul am na ñoo xam ne nag euh, ma tooñ sama mbokk séeréer yi wàcc njaay dafa doon wax ne dañoo am benn seen benn mbokk mbokk séeréer seen dëkkandoo moom nag du jullit seen xar medd léegi nag ñu mu mu koy diri ñu ne ko loo loo koy doyee mu ne ñu euh, ñuy dafa medd baaxul daganul mu ne gis nga du lii la ñuy waxati yéen su ngeen reyee baax na su yàlla reyee baaxul ah da ngeen bëgg wax ne li ngeen rey moo baax waaye li yàlla rey baax moo baaxul xoolal ma loolu rek ko am na séeréer yi moom tooy nañu waar <laughs> te ñu jéggal ma <laughs> dégg nga wala xamal xinziir la xamal xinziir yàpp mbaam xuux hmm? yàpp mbaam xuux dagganul wa ak lépp loo xam ne bi bihi li xayrillah rendil nañ ko biñ koy rendi li xayrillah nag nañ ko lu dul yàlla ah rendil ko lu dul yàlla ah sacrifice waa kay sacrifice ñëw ci géeji géeju ngor bi walla géej kii rendi fa ay nag ñu ne dañ koy rendil xaw ma lat daawur góor xaw ma lat nuñ ko waxee seen kii yooyu daganul la lekk daganul wa maa uhilla li xayrillaahi bi lépp loo xam ne rendil nañ ko te yàlla taxul xërëm bi la rab bi la moom lañ ko rendi daganul lekk daganul lekk daganul lekk ku ko lekk lekk nga lu araam dégg fa man nutura képp koo xam ne euh, loru na te xayra baaxin te loru gi bew taxul bew taxul dégg nga wala aadin ci jéggiwul day maanaam du caageen koo xam ne dafa demoon di agressé ji wala di doxaani mu xiif fekk ko foofu walla mar fekk ko foofu walla yu mel noonu du ñooñu koo xam ne dafa tukki tukki bu dagan mu xiif ci yoon wi te gisul lu mu lekk te su lekkul medd bi mën na am mu loru mu lekk medd bi mën na lekk mbaam xuux mi mën na lekk lépp loo xam ne dagganul woon ci temps normal daggan na ci moom parce que moom dafa loru su ko lekkulee dafay dee borom téere yi ne nee nañu ndax dafay lekk nag boo pare ah yóbbalu am yóbbalu denc yóbbalu walla da koy lekk ba pare sànni am na ñu wax ne na ko sànni am na ñu wax ne déedéet su lekkee ba pare na dugal ci mbuusam yóbbaale parce que li ko daloon ba muy lekk médd su ko dalaatee mun na am bañ mu bañ a gis médd ma kon na dem na yóbbaale ba mu gis lu dagaan mu sa mu sànni ko ñu ne bu mu ko sànni na ko gas suul parce que soo ko sànni walla nga aj ko nit mun na yaakaar mun na yaakaar yaakaar ne nit moo fi jaar lekk ba lekk ba suur sànni ko mu lekk ko fekk lu lu lu lu lu la beneen bi ñaar ku xiif ba loru nga gis medd ak mba mkou, yap mba mkou, te medboul. Ban mwen priyolite? Hmm? Mba mkou mi? Defa daganoul? Waye, mwen tane meddimi, meddimi, khamon lukorey, ben. Khamon den kwa pozone, mwede. Khamon item, te, med, defa am ay, ay, ay, poazon yok am yomen nek ki ti mwen. Deret di genoul, ak lep, mwen gichi. Kon, bubes bi mwen geni. ala kulli waaye lor moo koy tax lor moo koy tax loru mooy tax nga lekk su dul woon su dul loolu kenn du ko lekk koo xam ne dafa agressé ci woon agressé ji woon walla dafa sàcc woon walla dafa doxaani woon walla yu mel noonu yu mel noonu kenn autorisé wu leen ñuy lekk méddum nañu dee <laughs> dégg kooku su ko lekkee ki nga xam ne dafa loru fala ismaali xam nga ñaar dafa am wa ma uhilla bihi li xayrillaahi ak wa ma uhilla li xayrillaahi bii ñaar ñu wute lépp loo xam ne dañ biñ koy rendi yàlla taxul mooy sacrifice ah dafa am sacrifice bu baax nag ak sacrifice bu bon sacrifice bu baax bi mooy nusk alifa nuska wal ibadata wal xalwata iflan wa hakaza nujaba an nuska mooy am nga soxla boo xam ne dañu ñaan ci yàlla mu ne naa wut gàtt rendi ko jaamoo ko yàlla saraxe ko loolu mooy nusku lu baax waaye rendil ko xërëm rendil ko tuur ba rendil ko yu mel noonu maam xamu njare ak maam kumba bang ak ki yooyu hmm? kenn du ko lekk kenn du ko lekk beneen bi mooy li nga xam ne bi nga koy rendi bi nga koy rendi yàlla sax nga ko rendi da nga koy rendi pour lekk waaye bi nga koy rendi tur keneen nga ci wax du ko dul yàlla rendi moom bismillahi allahu akbar doo ci boole arrahmaani rahim sax ndax yërmande la te bàyyi bu sax dafa doon ne paaka mu ñaw ci putam jaambur nga ne arrahmaan rahim yërmoo ko kon bismillaahi bismillaahi allahu akbar nga rendi waaye soo ne barke koo munti tudd di nga koy rendi tudd ci tur ku dul yàlla medd na medd na ah waaw ah yi ñu nekkee foofu xaaj Maalik euh, euh, laajoon dañ ko ñu ne nag yi ak xar yi ñu rendi foofu ci bétuwaar yi ndax daggan na ay kii mu ne ko ah loo xam ne da nga euh, comme que ay jullit ñoom ñoom ñoo koy rendi da jàpp ni Euh, dagan na ay jullit ñoom ñoo koy ren sa alal na lew <laughs> sa alal na lew da nga jàpp ne xam nga yi toujours dafa bëgg loo xam ne lu concret da nga xam ne waa ji ko rendi du jullit waa su dee jullit la du limbit nag ndax boo tudd nga bismillah ak yooyu mun nga ko gis nga soo soo ne sooy rendi soo waxee bismillah rahmaani rahim dañ koy lekk soo fàttee wax bismillah rendi tey dem dañ koy lekk te nga nekk jullit fekk fàtte fàtte la soo teeyee ne bismillah rahmaani rahim mooy noonu soo ko fàttee mooy noonu dañ koy lekk na nekk jullit rek kon ñu teg fi suñu baaraam ba ëllëg incha allah ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ak taysir nangul ñu suñu jaamu yàlla euh, maa ngi jéggalu ci gantañ lu ci bor euh, doomu soxna yi ak borom xam-xam yi euh, lépp loo xam ne jub na yàlla lépp lu ci xam ne dëng na ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu bi jaay Seydou ji sallallahu alayhi wa sallam al nañu yàlla nangul suñu koor defal ñu jaamu yàlla bu ñu nangu bi jaay Seydou ji sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaan nag ñu respecté

da ngay nekk ci région dañu ne restez chez vous restez chez vous nga jóge foofu jóge seen dëkk ak dëkk nga ñëw euh, fi nga ñëw soo indewaalee feebar nga wàll leen lor leen su fekkee ne fekk nga fa feebar nga jël ci loro loolu itam nañ ko moytu ñu def ñaan nag yàlla dañuy moytu ba pare soog a ñaan yàlla nañu moytu soog a ñaan yàlla walla ñaan yàlla moytu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi waa ji ñëwee di ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw rek tekki gélémam bàyyi ko mu dem yonent bi laaj ko ana sa gëlëm mu ne ko dénk naa ko yàlla dénk naa ko yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ana gi mu ne ko dénk naa ko yàlla dàq naa ko mu dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne am demal yeew sa gëlëm ba pare nga dénk ko yàlla kon dangay def li nga war a def li nga mën a def li nga xam ne mënoo ko nga bàyyi ko ak yàlla waaye euh, da nga gis nit ñi dañuy dëgër bopp da romb duñu Eh, tak ay mas duñu respecter li ñu leen wax dañu dox lu leen neex guru bo di wax guru bo di waxtaan loolu yépp nañ ko moytu ngir ngir feebar bi bañ a law eh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla tëggal ñu ko bi jaay sidou sallallahu alayhi wasallam eh, bokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh